asalaamaaleykum waa Mouhalim Sport TV dal leen ak jàmm ci xibaar yi nam mën nañ leen trop tayoo tey nag dañoo ne woon ci ay yitte waaye ñoo ngi leen di jégalu bu baax dugg nañu weeru ramadan kon naka bon ramadan mubarak avec les tous les muslims di baalu ñëpp ku ñu tooñ ak ku ñu tooñul mbokk internet yëpp daal ñu ak kooruk jàmm ñu am xéewal suñu borom may ñëpp xaalis ñu feebar jug jërë ngeen ñu door a xibaar yi nga xamante ne moo di Ronald Araújo moom nag jour FC Barcelone waaye nag tey jii doon na ak taskatu xabaar bi nga xamante ci ni Maxi bi moom musta door FC Barcelone foofee ca biir Camp Nou Ronaldinho nag nee na mbégte lay am pour kat reste fii ci FC Barcelone ndax kat FC Barcelone équipe bu ma yàgg rafet la waaye it maanaam FC Barcelone gi daal mën naa ne danaa fi def ay yeneen at yoo xamante ci nii FC Barcelone fii def ci FC Barcelone mën naa ko tey it la waaye défenseur bu na ay kàddu daal FC Barcelone gi péréguma ci moom Xavi di doomu espagnol moo

la yor ndax kat fépp foo xamante ni Iniesta jaayoon na fa Iniesta jaar na fa FC Barcelone moom ko ki nga xamante ni moo di Pedri kat tey ji dafa dugal def match bu rëy ba tey ji moom la ñuy jox l'homme des matchs moo tax kam ñu boole ko ci xibaar yi kon nag Pedri bonne chance supporter FC Barcelone nii ñu ñëw ci ko ki nga xamante ni moo di Anthony Rudiger moom naka moo waa eh, dirigeant FC Barcelone di ñoo amaloon ah, waxtaan waaw

réussir foofee ne ca Marseille kon nag Cheikh Amadou amuñu yaakaar benn a seer ci àdduna bi kon kat ko nangoo jël waaye ñu fàttali ne moom ci FC Barcelone Barcelone googu na fa kat daan doxal kon nag xañ na waa FC Barcelone yërëma ko jël ko waaye moom it suur bu jàmbaare la kon nag dañu ko dañu leen koy laaj ci commentaire yi moom Neymar kat ndax yéen foofee ca FC Barcelone ndax kat waa PSG ñoom tàqale ko moom la bëgg ñu ñëw ci kookee di Aliou Cissé Sofiane Diop Boubacar Kamara Aliou Cissé kat doom na amal ab journal ak waa Wiw Sport ñoom nag ñu xarañ nañ ci wàllum sport la ma leen xamal nag moom waaye it kookee de Boubacar Kamara nag wóowuma ko li ko waral moo di équipe nationale de Sénégal am na joueur te joueur yi mën nañ li ñuy def waaye it daal am nañ nofel bu neex ci kookee di Soufiane Diop am nañu yaakaar ne kat xale yi bu ñuy dem ca Qatar ngir kat jëli coupe bi indi ko fekk Sénégal moom Soufiane Diop dina ko ca bokk dina dem kon nag gars yi ci commentaire yi ñaan leen Soufiane Diop kat Aliou Cissé programme bi nga xamante ne mi ngi koy lal ak Boubacar Camara ñoom ñaan ñëpp mbir yi soppi mbir yëpp dal di noppi ñoom ñaan ñëpp ñu ànd ñëw Sénégal jàppale équipe nationale de Sénégal ñu ñëw ci benn xibaar bu ñu jot nag mu jëm ci Coquet de Lacazette moom naka ñu fàttali leen ne waa FC Barcelone dañu ko bëgg maanaam FC Barcelone daal jamono ji la ñu bëgg mooy moom ak Aubameyang ñu ànd nekk foofee ci FC Barcelone di doxal ndax kat ñoom ñaar ba ñu nekkee foofee ci Arsenal daan nañ doxal moo tax waa FC Barcelone kat leen bëgg a boole ñoom ñaar kat ñu day di régir ne ca FC Barcelone kon nag ko bëgg moom nag li ñu bëgg moo di boole ko ak kookee di Aubameyang wa sori na trop ci diggante Lacazette ak Aubameyang FC sama gars yi bu leen fàtte abonné te bës ko de notification yi mi rek kat bépp vidéo bu ñu dugal rek kenn du la ci njëkk jërë ngeen jëf bon ramadan avec Mouhalim sport